jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare lamb mbokk yi nuyu nañ leen ab kontaan ak mbégte eki ey eh, kàkku booy bu gàtt bi mu ngi nii xarit bi nga xamante ne ànd nañ fu nekk vraiment ma fekk ko dëkkam Jurbel di njaareem li nga xamante ne mooy sargal Eumeu Sène Junior mbokk yi ni ma leen ko waxoon wasaare lamb fépp fu xew-xewu lamb nekk dinañ fa dem dëkkal leen ko tey ñu fekk la sa dëkk ban yëg-yëg gaab sama xarit ah xarit la ndeysaan ah. non damaa kontaan. maa ngi yor jàmm. maa ngi sant bu baax mu ngi neex. tey ñu déplacé wu ñëw. Eumeu Sène Junior nekk doomu Diourbel. nga nekk doomu Diourbel mu am ndam lu rëy. diggante ak Calme Ndour combat ba seetaanoon ko. waaw naa ko bi seetaan naa combat muy wane ne Eumeu Sène fierté Diourbel la. te Eumeu Sène daanaanu lamb la. te yéen ñi déplacé woo ñëw ba Diourbel tey fekk ko fi ñu ko fi sargal. di ngeen mën a am ci Eumeu Sène da ngeen mën a xam kan mooy Eumeu Sène Jurbel yëpp ñu ngi ci ginnaawam Jurbel yëpp ñu ngi koy topp bu ko defee lamb gën ko geesu lamb gën ko jox bët lamb gën ko jox ceeb ndax ndaanaan la bu baax a baax. bi mu am géejawaay est-ce que am na ko Jurbel fii buy déplacé wu di bëre ji ay mbooloo est-ce que dinañ ko topp Jurbel. ay kaar yu jugee Jurbel topp ko di ni ay kaar yu jugee géejawaay toppoo Mbese noonu la kaar yu jugee Jurbel kon li maam li nga fekk fii rek dana koy firndeel yàgg nañ la woo yàgg nga ñëw affaire bi yéex a commencé gis ni mu guddee commencé ni mu commencé Jurbel yëpp génn nañ ay kaar la ñuy def topp Eumeu Sène di ko supporté lamb moo ko war a gëstu bu baax a baax daal tey sa raas gis dinaa ko gis nii xanaa di nga ko gis ah. <laughs> jaajëf kàggu ayca ñu dem ci biir. Père Thiam maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaar. maa ngi lay fay. mbaa sant yàlla bu baax. naka Diourbel. ñu ngi sant baax. naka làmb Diourbel. waaw ñoo ngi jéem de ngi dox ndànk-ndànk comme Dakar rek. non Dakar moom moo dàq Diourbel ci baax. non foogoo tënnu ko nag. foogu ñoo fi tabaski. gis nga li boobu moom làmb ji toj na fi. waaw ah, mu ngi comme dañuy doog a commencé nag suñu suñ commencé waatee nga ñëw fi gis waaw. jiite làmb fii ci kuréelu Diourbel yomb na. waaw yomb na yombul yomb na ci kaw nga gëm ne nga war a jiite def li nga xam moom la si laajte rek day yomb mais soo buggee def yaa ma neex du yomb mais yomb na si ñun man moom yomb na si man waaw. drapeau chef de l'État dafa am Kaolack. Diourbel ñëw indi ay athlètes jël ndam li yóbbu ko da nga koy téye wala da nga koy delloowaat. dama koy jëlaat comme maa koy organisé maa koy organisé dama koy jëlaat fii lañ koy organisé ren combat Eumeu Sène Junior Calme Ndour fan la la fekk. non njaaram la fekk fekk ma am malade ci hôpital bu ma bu ma téye mënumaa ñëw loolu kese la woon. combat bi ci ban moment nga ko seetaan ci moment wu combat bi wala après combat. non après combat bi laa ko seetaan après combat bi maa ngi biir hôpital toog waaw. avant combat bi déggante nga ceeg Eumeu Sène. waaw mais moom dañuy déggante chaque jour parce que combat bi ñu ko jàppaate sax maa ko woon ko sa combat jàppaat nañ ko. dañuy déggante avant comba après combat ci combat ba ci après combat bi ñoo ngi déggante woon. bi muy bëre Calme yan conseil nga ko ci jox ba mu génn ci combat. waaw newoon naa ko waa mbappat bi la yaakaar su ñëwee ci xeex bi moom day ñàkk loolu laa ko waxoon bi rek la yaakaar bi mu bëree nga gis ni mu continuer comba bi entendé ko ba am ba am ci ndam lan nga ci gis ni xale bi yokk na ko ci. Eumeu Sène junior ak lan la war a bàyyi. waaw mais da ngay jàpp ne booy amoon danger yëpp moom moo leen éliminé si lamb ci mbërëm la dari fa mu nekkoon la rek ñu ëmb ko muur ko moo tax mun naan feeñ mais fii topp naa ko ay mbapat maa ko njëkk a tëgg fii Diourbel moo ko Cheikh Niang maa ko njëkk a jox avance dëggal ko lamb moo ko Cheikh Niang kon xam naa li mu mën a amuñ ci woon Cheikh Diakha. maa lay sama gars yi Eumeu Sène a ngi noonu ak soxnaam <laughs> waaw waaw ndeysaan lii dafa neex mbokk yi kii mooy soxna Eumeu Sène Eumeu Sène si ñoom ndeke dofut de saaliwul xaalisam de soxna si maa lay nuyu di la siyaat maa ngi lay fay. maa yaa ngi am jàmm. maa ngi sant yàlla bu wér. bi naan la Fama Faye. Fama Faye. yaa loolu am na. loolu yàgg na 4 ans. 4 am borom këru mbër yomb na. waaw yombul mais da koy gérer rek yombul moom mais da koy gérer rek. a ah, yor jëkkëru star ñëpp di wër loolu yombul. daa fiiru. déedéet fiiru ma. xalaatu ma ko man ma doon xam naa may kan. bu amee combat ci moment bi mu amee combat nga nekk soxnaam lan ngay yëg ak yan moment ngay xam ni moment bi moom mënatuma téye sama bopp. waaw moment yu métti la moom macha allah mala moment boobu dafa métti yow su jëmi bopp yow sa sa famille justement yow nga nekk jabaram di dund difficulté yooyu day metti mais sant yàlla nag dañ koy dañ koy gérer rek. bu ba pare am ndam lan nga yëg. ah loolu moom dafa neex dara dàqu loolu dara dàqu ko ci àdduna yàlla nag mooy maye bu mu la may da ngay jël mais ndam moom moom la ñuy ñaan chaque jour ndax ndam dafa neex lii moom xam nga ne dafa neex dara dàqu heure bu daanee nii lay demee. bu bëree daan wala moment bi muy bëree ñu teg ko en direct ci télé bi di nga seetaan. man bu xasee combat bu ko xasee ba am duutuma nelaw semaine bu mujj bi man duutuma nelaw loolu moom am na moom. soxna kenn mënu koo fay. yàlla waaw loolu am na. looy wax mbëri yi nga xamante ne yor nañ soxna ñu. mbëri xanaa ñuy góorgóorlu waat ñu ngi góorgóorlu sax waaye ñu yot ndax soxna moom yaay la surtout aawo da koy jàpp rek yërëm ko tenir ko moom it mu jàppale la. saa yi ñi ko bëgg a moom bari na yow kan nga bëgg mu bëreeg. ah xanaa nag ku wax rek Boy Niang. Boy Niang nañ. ah muy jël Boy Niang moom yaa ngi jabaru Boy Niang da ngeen di man daw lool. ah lool jabar Boy Niang sama doom day la. Ah. waaw bu boobaa day neex. Ah, <laughs> waaw. soxla Eumeu Sène soxla Boy Niang. loolu day neex. maa lay jaajëfal. kay merci kontaan. bis bu mel nii noonu loo ci loo ci yëg. sa xarit yi ñëw nañ say am di jàmm ñëpp ñëw. waaw gis nga fii ni mel. macha allah sax dañoo am ñaari xew sax sama yaay doomam day def mariage moo tax mu demee nii mais kon dina gën a ëpp ni macha allah chaque nii lay demee dañ ñaan yàlla nag avancement dem ba jël roi des arènes indi ko fii Diourbel di ko feet. ñëpp xam nañ ni ñaareel yi laa àndal ndax sama tante ñaareel la. moom yoruñu ko gis naa la nga nga koy tooñ ci émission mais ñaareel yoruñu ko aawayee ko yor waaw. koy wax loo koy wax. yaa waxoon Dakar da ngay takk ñaareel de. ay jili te tas nga kër gu ne jili. jili tas nga kër gu ne. man de yaa ko ñaareel laa àndal ndax sama tante ñaareel. kañ laa la ko wax. man laa wax ñaareel laa àndal sama. yow sa tantam man ba ma sama jabar diili mooy sama jabar a ngi ànd ko sama jabar a ngi. sama jabar mi ngi nii. Eh, dina <laughs> Ah, ah loolu dafa neex. Tanor nuyu naa la. Ndeye Mbacke lay tax Ndeye Mbacke. sa rax bu jigéen. man sama yoon newu ci de. sa bu jigéen la yaa ma ko may naa la. bu baax. sant yàlla bu baax a ma ñëw fii ñuy sargal Eumeu Sène junior ma gis na fi ngay doomu Diourbel seen diggante yee ñaar lan la. kii ma Eumeu mooy man man maay moom. soow la ak laax la rek sotti ceeg jox si la. soow ak suukar. boo leen naan rek wala boole leen tuur. bu leen làmb du ngeen bër. kii ci àdduna amul mënta ne. lu parce que boo ko leen écrit moom mu ngi nekk géej waaye yow yaay nekk Langsar. ñoo bokk couleur bu ñuy défendre Diourbel. géejawaay lay défendre yow ngay défendre euh, Langsar. bu ñu demee Dakar mu ngi Thiaroye maa ngi mu ngi géejawaay maa ngi. dafa gaale kii dafa gaale dafa gaale ma ne la. maa moom fan lañ jógee maa moom fu mu bokk jógee. waa lan mooy géejewaay géejewaay la Diamaguène la dëkk mu dëkk géejewaay mais fan lañ bokk jógee fan moo ñu meññ. Diourbel waaw Diourbel moo ñu meññ. waaw lan boolewuñu amul loolu non man moom gis naa promoteur bu bëgg seen koom. a nekk loolu mënut a nekk. bokk ko parce que Serigne Bamba kenn bu ne dul nekk ci àdduna. Ah. waaw man maay moom. kii sama xarit la sama mbokk la ba pare borom baax la. bàyyi faal la wax dëgg yàlla xol bi dafa rafet. bi muy bëree Kalmu Ndour seetaan nga combat. waaw bu baax combat bi kii su ma yeboo nee daanaka dernière semaine bi yëpp man ak moom ñoo nekk amoon naa ci xel mu dal bu baax te kii comme li ma la rek xëy na lamb moo doxul ni mu war a doxee rek mais kii ay moromam ci làmb moom war na leen a jot fi mu toll nii waaw. lan nga ko mujjee wax bi muy bëri. waaw kii moom comme li ma rek lamb moom da ngay teey rek jox ko cër def comme ni mu doon def rek parce que moom lamb toll kenn dootu ko jàngale ci lamb. waaw. yow foo ne. man maa ngi Lamsaar. gaa yi ana ñu ñuy wax. ah. gaa lu ñu wax. gaa yi ñu ngi wax nii rek mais xam nga gaa yi dañuy mooj dañoo bëgg nooy. te fii lu nooy amu fi. nañ loolu nooy. moog. ñoom mu dégg lu nooy. fii ñun Bawol lañ dëkk Bawol yomb. ci làmb fan la boo ma doon limal. fii sama catégorie ci làmb mooy comme li ma la wax ay franc xam nga. franc moom ñeme jot. déet xalaatoo lool. ñooñu maa leen gën a riche palmarès man treize victoire la am treize victoire la am. xam nga deux défaites la am. deux défaites waaw. kan ak kan a daan. Cheikh Niang moo ma daan. Niang Cheikh Niang ak. Cheikh Niang euh, mel bu Thiès. waaw mais mais ñaari yoon lañ bëre ma ak moom ma daan ko dañoo bëre war nañ ma daan ko. xam nga boo. garaaw treize victoire. treize victoire ku daan gabaar. ku daan gabaar daan double Tyson doon Mbengue Senior daan Vandam daan Bougan loolu rek. doy na. waaw ah. gabaar dox bi ko jàpp duma ko daan ko. double Tyson musul daanu ma daan ko daan Mbaye Guèye Junior daan Vandam. treize victoire amul sama benn morom boo xamante ne moom. lan moo tax ñu bëgg suul ci la nooy rek te fii nooy nee naa la mu fi de fii lu woo koŋŋ ne. waaw. góor a sook comme nee nga góor a soog nañ ma ko jox ma noos ci ubbeeku ci. laa góor a soog rek laa soxla. le promoteur fëggoon léegi nga lu mu jubóog moom rek jarul muy wax ak man dégg nga bu baax na njëkkee foofu bu mu njëkkee ci man sax promoteur bi. dinaa a waxtaan. loolu fii la bi maa lay. neex dama koy dàbbali. waaw dàbbali ko maa lay xar waaw. ginnaaw loolu Eumeu Sène tey ñu lay sargal fii ñu ñëw fekk fi say mbokk. fekk fi say njagañaale fekk fi lépp sa digganteeg ministre bi ak bi nga ñëwee gis mbooloo Jurbel bi niñ la teertoo ban yëg-yëg nga ci am. d'ailleurs dañuy sant yàlla dama lay jubbanti tuuti Eumeu seen mooy sargal ministre Dame joob ministre bi yaa koy parce saa su jógee Dame Diop da koy teg tànk bu baax te ko loxo bu baax. Mm-hmm. xam nga seen normal bu ñu amee ndam ñu ñëw fii bàyyiwuñ benn autorité nag ah. mm-hmm. mais te ji gën a jege gën a yey. Mm-hmm. te ki lay ki lay ki këmax. ak ki lay bëmax. du benn. këmax ak bëmax du benn daam jób saa suñ jógee mu bëmax ñu ñu dem fu sori saa su booy jógee carrément muy yëkkati xaalis bi takku jox leen du ñu am problème transport du ñu am problème billet kon c'est normal ko bu ñu amee ndam ñu ñëw daal di def sargal Dame Diop autorité yëpp ci bokk nag mais Dame Diop moo nekk ci bopp bi man ma seen junior maa bu ma ko moom nu ma ko mën a waxee ci français suy derrière lii. ministre joxe liggéey. waaw ministre Dame Diop liggéey. <laughs> voilà man ak ñi ma àndal ñëpp ñëpp ñëpp ñu ngi ci ginnaaw Dame Diop. Mm. parce que moom moo ñuy jàppale. di nuyu grand Assane Sylla bi ak képp ku fi taxaw. di nuyu ñëpp Omar aussi ñu ngi koy ziar ak Tafa Seck bi nga xam ni suñu kilifa la. li ma wax naan la bala ngaa dem suma fans club dina am ñu wax. Mm. mais kii ñun amuñu fayam. Mm. dañ koy ñaanal yàlla suñu borom li mu bëgg. yàlla suñu borom defal ko ko. am nañ droit ne droit ne yàlla nekk président. Ah. waaw parce que suñu fierté la doomu Diourbel la doomu Kër Seex la li ñuy wax daal mooy ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko ñaanal yàlla suñu borom lu mu mën ren yàlla na ko mën déwén ak képp ku mu àndal di ko wax ne mbooloo mi fee jégoon na dayoo ñëpp génnoon nañ am nga ci ay séquence bu soobee yàlla dara du ko ci ump yow moom yaakaar naa ni ci yow la làmb dëppee moo tax booy yëpp boo xam ne na wasaare ñëw na wasaare ñëw di nuyuwaat ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp aussi tamit may wax ne chef mais respect wax lay bu baax xam nga di nuyu ñëpp wax ne kontaan nañ trop waaw di wax ministre kaddu noonu monsieur le ministre tey mbër mi daan ñu war koo honoré mu ne yow lay honoré ngir taxawaay bi nga xamante ne am nga ko ci moom ak jàppale bi nga xam ne yaa ngi ko koy jàppale ban yëg nga ci am waa jërëjëf xanaa sant yàlla bu baax a baax a baax ndax euh, li ñu fi dajale woon tey ëmma wax na ko champion ëmma mm-hmm. euh, mu décidé dem suñ borom may ko ndam mm-hmm. mu ñëw ne daf ñuy sargal mbaaxam la rek mm-hmm. ndax ñun dañoo bokk lépp bokk Jurbel bokk Kër Cheikh muy suñu fierté moom saa suy bëree ay at buy bëree ñun ñëpp ñu ko mën ak ñu mënul autorité yëpp dañ ciy jàpp. Mm-hmm. particulièrement parce que ñun ñoo bokk ñu ne bokk Kër Cheikh. Mm-hmm. kon boog ñun ñoo ko waroon sargalaat tey. Mm-hmm. parce que bi mu demee gagné def suñu fierté bu ñu ko gisee ci télé dañuy dañuy am mbégte bu baax mais comme ni wax rek ñun doomu Jurbel euh, suñu particularité mooy dañoo mën a sot. fu suñu mbokk nekk ñu jàpp ci li liñ ci war a def ñu def ko ci. kon boog tey vraiment plaisir la ci man ma ñëw fekkee sargal bi nga xam ne ma koy def mais ñun ñëpp waa Jurbel yëpp ñoo war a booloo bokk ndey bokk bàyyi nekk ci gannaam parce que wax dëgg yàlla xale la champion la te am nañ ci moom am nañ ci moom yaakaar. Mm. donc tey moom fierté bu rëy la ci mën ci man ngay wax ci mbooloo mi nga xamante ne ñu ngi topp ci ginnaawam te bu jógee nga jóg te ku xam autorité yi nga xamante ne dañoo nekk Diourbel saa su ne dañuy soxla mbooloo yi nga xamante ne dañuy topp ci ginnaawam bëri. waaw xam nga mbër moom làmb moom suñu sport national mm-hmm. donc. Euh, bu ñu gisee am yàlla dogal parce que ku ku sañoon tey am Eumeu Sène sa kër sa sa koñ wala sa dëkk donc su ñu gisee mu jóg xale yëpp jóg mag ñi jóg jigéen ñi jóg jàppale ko c'est parce que d'abord làmb suñu sport la dañ ko fonk mais moom it daf ñu koy delloo delloo bi mooy bu amee combat dina ci def fulla def ci fayda suñu borom may ko ndam li baax rek mooy euh, làmb sport la Euh, saa suy dem nañ ci ànd ak fulla ak fayda jàppale ko su ñu demee ñaan yàlla suñu borom may ko ndam te ndam moom suñu borom moo ko joxe su ko joxul it ñu xam ne suñu borom moo dogal lool waaye du wàññi dara ci champion bi donc ñi topp ci gannaawam nañ gën a takku ñun ñëpp. képp kuy bawol bool sax laa mun a waxuma sax jurbel rek mais képp kuy bawol bool parce que bawol moo gën a yaatu jurbel ñu xam ne moom ñoom suñu ay suñu ay fierté lañ dañ leen war a dañ leen war a jàppale. ku xam ministre Dame Diop xam ni gaynde la est-ce que Eumeu Sène buy bëree di nga tiit. non du ma tiit parce que xam man sportif laa woon man nag du ma woon mbër mais footballeur laa woon mais li am solo rek ci sportif mooy booy dem parce que man gis naa ko muy entraîner di waajal combat am et moo ci am solo. Mm-hmm. nga jox ko gëddëm jox ko àqam entraîner. def li nga war a def li ci des nga bàyyi ko ci loxo yàlla donc boo ko wéeree foofu rek doo dinga dinga di tiit parce que di nga am stressé parce que dinga bëgg sa mbër su demee gagné mais boo nekkee sportif xam ne sport moom da ngay def li nga war a def ndam li nga bàyyi ko ci loxo yàlla su la ko joxee nga sant ko su la ko joxul nga sant ko xam ne tamit beneen yoon dina la ko joxaat. jërëjëf jërëjëf wasaare. jaajëfal baax xam naa ni taw bee tax mais bëggoon nañ mu gën a yaatu mais ñu lay jaajëfal bu baax. Ah, ci yëg bi nga ko yëg ndax ñun wax dëgg képp ku yëg mbëru làmb rek daanaka ñun nga yëg. mais xéwal la sax parce que def sargal ba waata waa ji jeexal muy taw. ci fi ñu toll nii nawet bi dafa naa ne signal bu fort la ñu ñaan yàlla rek ñu dajawaat fi yeneen euh, sargal Eumeu mu nekk un champion national boo xam ni dina am yeneen ndam programme yoo xam ni plaisir lay nekk ci ñun waa Diourbel. jërëjëf kontaan nañu leen di sant bu baax. <laughs> won Dame Diop ne mooy mbër mi mais maay mbërum làmb mi wala leen. waaw wala du ma mbërum yaay mbërum won Dame Diop boo bàkkoo bu neex boo bëree. ni may tegee loxo dama ci yëg sama bopp damay won Dame Diop ne mbër mi mais man la fi yàlla tëj. waaw waaw mbërum làmb mi.

saa bu nu jugee ñun fan sa club bi daam puus ñu teg ñu loxo jàppale nu daf ñuy jàppale ba ñun nañ ciy gisee suñu bopp sax dafa ëpp wallahi lazim ñu ngi koy ñaanal lépp lu man ren déwén yàlla na yokk di ci gërëm suñu grand Assane di ko xamal ne fan sa club Eumeu Sène Junior ak waa Njaareem rawatina waa Kër Seex ñun ñëpp dinañ takku nekk ci ginnaaw Assane Sylla jàppale ministre bi ndax ñun xam ne fu ministre bi dee Assane Deva Assane daf ñuy jàppale di ñu tette di ñu xamal kan mooy ministre moo tax lépp lu man ñun fan sa club bi ak waa Njaareem ak jeune kër Seex ñu ngi ci ginnaaw Assane Sylla ànd a ministre fu mu ñu woo ñu nga fa ñun ñoo jël suñu décision bopp pour jàppale loolu moom na ko Njaareem gépp xam ñu ngi sant Assane Sylla bu baax a baax a baax barki dem def nañ réunion bu mag buntu këram mu xamal ñu lu bari bari bari bari bari bari bari bari ci grand bi kon nag ñun tey jël nañ suñu décision bopp lépp lu mu wax moom lan wax lu mu waxut wax ko ñun ñu ngi ci ginnaaw ministre bi tey ba ëllëg